Nous avons bu que son excellence monsieur Macky Sall président de la république 12 août passé nous euh, avons ñu euh, sama di le ministre Mohamedou Sissé, euh, Makhtar Cissé bi pétrole et énergie ak man pour que nous dajee ak maire waxtaan ak sensibiliser ci l'éclairage public L'éclairage public est un problème de sécurité un problème de confort euh, problème de moderniser tamit bokk na ci wante liñu ñu gis mooy daanaka amul ben commune buy fay éclairage public état bi moo koy fay moo ne day ci taxi liñu wax moy commune ñoo wara fay seen éclairage public lolo tax bu président Macky Sall euh, wax ñu ñu daje ak maire yi pour que ñu gën a weccoon teg xalaat ci bir momu pour que ñu xamni sen responsabilité la bien que état bi moo koy fay wax leen tamit ci énergie yu bees yi muy énergie solaire xam nga solaire moom yàlla yàlla def na am nañ ko ba mu doy kon bu ñu développer éclairage public solaire dinañu may ñu mën a économiser énergie te facture yu ñu daan fay te état bi di ko gàddu collectivité yi waroon ko fay dootul amati moo tax ñu rafetlu bu baax programme mu cinquante mille lampadaires yi président Macky Sall indi mais tamit ñaax collectivité territoriale yi que à partir de maintenant. C'est un projet def parce que y avons une collectivité qui collectivités yu def éclairage public ñu bayyi éclairage conventionnel Nous avons une def euh, énergie conventionnelle yi l'énergie def énergie solaire. xam nga problème équité territoriale la gouvernance gouvernance président Macky Sall lu mu fonk la ba taxna euh, collectivité yu béré béré wax deug fonds yi ci état bi dem ci depuis président Macky Sall 2012, dafa yokku 2012 fonds de dotation yu 16 milliards En 2020 il na ci 25 milliards. 2012 fonds d'équipement des collectivités territoriales euh, fukki milliards ak genn milliards ak ñaar ak genn 30 milliards Il y milliards ak fonds qui est qui mi ngi ñëw PACASEN 130 milliards là sur 5 ans euh, Dakar déjà war na jot 4 milliards pour la ville de Dakar donc il y a ko boolee ak a ressources sans compter ses ressources propres, nous war nañoo mën a dugal li nga xam ne moom éclairage public Thank you.